mooy Yewwi Askan Wi du viser la bon à tirer parce que Yewwi Askan Wi mënul viser li nga xam ni day tordre la loi Yewwi Askan Wi mënul nekk ci orientation bi nga xam ni président Macky Sall moo koy jël te méngoowul benn yoon ak loi bi ñu ko ñu ko ci suivre parce que moomul réew mi moomuñu ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda ëpp ñu fit je l'ai dit hier au commissaire bi ñuy toog di wax ak moom ma ni que Sall mi ngi leen di yóbbu ci coono parce que li mu foog ni day dem du dem parce que fit ëpp ñu ko formation yu ñu jaar des formations d'hommes il ne l'a pas donc fit ëpp ñu ko bu foogee ni nag à travers ces décisions lay yëngale Sénégal yëngal Sénégalais yi ku nekk xam fulla ak fayda bi nekk ci ñoom muy ñi nekk bi réew ak bitim réew bu fekkee ni jàpp na ni jël conseil constitutionnel jël le ministre de l'intérieur ñoom ñëpp mu leen di dicter li ñu war def contre Yewwi Askan bi mooy tax élection war am nim ko bëggee ak nim ko xalaatee mi ngi juum mi ngi yóbbu sénégalais ci impasse parce que lii amul sénégalais bu ànd ak xelam sénégalais bu objectif sénégalais bu Sénégal képp ñor ku mën a ànd ci lii président Macky Sall bëgg def bu fekkee tey les sages nga xam ni ñoom ñoo war appliquer la loi ñoom ñoo war respecter la loi ñooy jël une décision immédiate qui tord qui ne respecte pas la loi et toutes les conséquences de ces décisions jëm encore sur l'irrespect de la loi sur le non-respect de la loi R58 nekk ici ngeen xam ni ko réew mi mi ngi ci yoon bu dangereux et Yewwi Askan bi fera fas on ne signera pas bon à tirer parce que duñ ko topp ci joggati li nga xam ni mooy yoon donc loolu lañu wax beneen mbir mi mooy lu mësul am Sénégal xanaa élection benn yoon lañ ko organiser tey ñu war jëm élection dugg pré-campagne CNRA ñaata yoon la def communiqué ci élection kenn mënu ko compter tout en CNRA day def communiqué est-ce que mos ngeen gis gis un communiqué bu CNRA bu gouverneur reprendre gouverneur reprendre communiqué CNRA def si ay extension yi nga xam ni le code électoral n'en parle même pas extension bi nga xam ni dara taxu ko jóg lu dul jéem a ant yeewi askan bi parce que tey il n'est dit nulle part que activité politique du am pendant pré-campagne mais ñoom ñëpp a nekk en activité politique Macky Sall ba élection locale yi ba ci veille élection locale yi Macky Sall a ngi pré-campagne ngi ci ay tournée économique ak ay inauguration ak ay yu kenn xamul yéen ñëpp a ko fekkee alors pourquoi cette fois-ci cette nouveauté ba gouverneur naan day génne un communiqué pour reprendre communiqué CNRA donc ngeen xam que danoo nekk ci entreprise une entreprise qui ne passera pas waxuñu dara ñuy jaay ay ruube naan sunu euh, manifestation bi ñu prévoir woon le 15 arrêté nañ ko président Macky Sall ñëw doole ci karaw ni finalement sax ci xar mi karaw ni finalement sama tournée bi ma buggoon def Casamance bàyyi naa ko dafa ñemewul dem Casamance. c'est aussi simple que sax donc yooyu yëpp pour donner benn tonus. donner benn suite au communiqué du gouverneur ñu ne dugal nañu depuis vendredi passé suñu demande pas demande suñu information de manifester pour le vendredi 17 hier à 15 heures on était au commissariat man ak Cheikh Tidiane ak le président Khalifa Ababacar Sall woo nañu foofu pour dégluñu ci manifestation ñu xamal leen ni li ñu taxoon jóg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 Yewwi Askan Wi ne signera pas le BAT Yewwi Askan Wi ne se laissera pas faire Yewwi Askan Wi ne laissera pas Macky Sall dans ses manœuvres ni le ministre de l'Intérieur ni le Conseil constitutionnel les sept supposés sages que le Cheikh Tidiane Loum a d'ailleurs appelé non que tu dis déjà pyromanes. les pyromanes Yewwi Askan Wi ne les laissera pas faire et on va qu'il le veuille ou pas faire notre manifestation du 27 du 17 du 17 qu'il le veuille ou pas Yewwi Askan Wi va Yewwi Askan Wi va participer avec sa liste nationale sinon il n'y aura pas d'élection dans ce pays kon ñuy woo mbokk yi ku nekk foo ne nga dégg loolu xamee que noonu xam ni président Macky Sall dafa bëgg jël buumu jaam takk ka suñuy baat te Sénégal jaam amu fi danoo yàgg bañ danoo yàgg fippu bañ ak fippu moo ko teg ci boppu réew mi bañ ak fippu moo tax tey mu doon président de la république sinon du ko doon masa doon c'est le seul à avoir fait trois ans dans l'opposition 2008 fin 2008 la ñëw 2012 mu yegg si pouvoir donc xamul en réalité rythme opposition xamul rythme bañ xamul rythme porté ay principe xamul porter la démocratie xamul rythme porter les libertés parce que ça a été extrêmement facile pour lui de sorte qu'il pense que lépp lu mu mën a jël mën na ko dérouler et yomb et noonu la koy sénégalais yi di bàyyi yéen yi ñuy waxal yéen a war jóg xamal ka ni du demee noonu parce que demeewul woon noonu ba ngay yegg si demeewul woon noonu avant 2008 président Abdoulaye Wade di yegg si te du demee noonu en 2022 ni en 2024 mbéjum kanam boroom ay fajal boppam te tey le président Macky Sall bépp sénégalais ak bépp sénégalaise foo mën a nekk yow la mbéj ci li nga xam ni teguñu ko ci suñu bakkan dañ ko teg ci li nga xam ni moo ñu boole conseil constitutionnel ñu todd ko encore une fois kon loolu laa amoon lu may wax di dellu di gërëm ñëpp di ñaawlu aussi di ñaawlu aussi di ñaawlu aussi la RTS parce que ce qu'il faut dire démb président Khalifa mi ngi koy fàttali CNRA esprit ci code bu 93 bu tax ñu dugal disposition de pré-campagne non couverture par les médias c'était la RTS ni mu daan def ak le candidat en exercice le candidat au pouvoir nga xam ne la RTS dafa doon ignorer tous les opposants du suivre di def propagande pour le candidat au pouvoir jusqu'au jour des élections loolu moo taxoon en son temps ñu waxoon ni pour équilibrer ñu dugal disposition boobu article l loolu la mais tey xool leen RTS est-ce que mos ngeen fi ñëw yéen ñiy couvrir activités yi boobu ba tey di suivre l'opposition partout dans des difficultés dans la sueur est-ce que mos ngeen gis une fois opposition bi am activité RTS ñëw teg fi microme bu l'avez jamais vu mais RTS ñoo koy fay sénégalais yi ñoo koy fay ñoom ñoo leen di fay yéen ay organes privés ngeen contribuable sénégalais yi à part ñàkk fayda yooyu ñuy joxe tous les ans xam tuddee aide à la presse mais ñëwul ci yéen RTS seen micro sénégalais yee ko jënd seen fauteuil yi ñuy toog sénégalais yee ko jënd seen table banc sénégalais yi ko jënd bu sénégalais yi wootee. doo leen gis il y que le président Macky Sall ak ay ministres am ñoo mën woote ngeen gis leen ñu toog te bu ñu toogee à longueur de journée di leen tegal seen ay activités di leen tabaxal immeuble 33 milliards alors que yéen ñii 33 milliards yooyu bu ko tasoon ku nekk am benn immeuble am et vous servez plus les Sénégalais que la RTS et vous n'êtes pas payé par les Sénégalais donc gisoo leen fenn donc ñoom ñoo taxoon L61 jóg la RTS démb le président Khalifa mi ngi koy fàttali parce que fekke na donc pour dire que ñoo ngi fustiger encore une fois seen démarche ñu xam ni nag ni président Macky moo fi nekk tey allah kulli àll daf fi jóg suba donc ëllëg lu jar a sóoraale la te ñun on est pour les libertés l'accès à l'information pour tous et quel que soit alpha loolu dina ami biir RTS donc ñuy wax loolu aussi. vous avant d'aller euh, sur la euh, le parti politique marché jàpp nañu marche bi te daan ko def rassemblement la sax d'ailleurs merci président rassemblement à la place de la nation Ce même jour, à Ziguinchor, il y également une marche bis boobu tamit Ziguinchor dina am marche le 17 parce que bi yoon au lieu d'un point deux points lay doon et ça va aller crescendo day gën a yëg ci point yi nga xam ni moom la ñuy def au niveau du Sénégal donc 17 bi dina am rassemblement fii ci place de l'Obélisque am marche fële nga xam ni moom mooy Ziguinchor pour aller très vite, on voudrait, à la suite des remerciements et félicitations adressées à la presse au nom de tous les leaders ici présents et des leaders absents pour des raisons que le président Abibsi vient d'évoquer. Après ces remerciements et félicitations, on voudrait vous entretenir de la situation du pays et principalement du processus électoral parce qu'hier, on a été convoqué à la direction générale des élections pour revenir sur un exercice pratique habituel, à savoir qu'à l'approche des élections, que tous les mandataires soient convoqués pour se prononcer sur les identifiants de leur liste. pour se prononcer sur la maquette, sur les spécimens de leur liste. Et quand on est arrivé, le commissaire nous a présenté un spécimen de Yewwi Askan Wi sur lequel ne figurait aucune photo. Et tout le monde sait que Yewwi Askan avait déjà choisi sa tête de liste et avait donné au moment du dépôt la photo de sa tête de à savoir Ousmane Sonko. Et sur les spécimens qu'on nous a présentés, il n'y avait aucune photo. Et quand on a demandé au commissaire Ndiaye, qu'est-ce qui peut expliquer que la disposition, l'article R58 du code électoral, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit aujourd'hui piétiné Il nous a juste répondu qu'ils n'ont fait qu'appliquer l'arrêté. et qu'ils ne sont pas là pour interpréter la loi. Et c'est là que je lui ai retourné son interprétation de la fois passée quand il a tout fait pour nous vendre la liste incomplète de Yewwi Askan Wi sur le cas Fama Meng alors que tout le monde savait que la complétude ou non d'une liste ne se mesurait qu'au moment du dépôt. Et on s'est rendu compte qu'en plus de l'illégalité, de l'illégimité. De l'illégitimité. L'illégitimité. Voilà. On s'est rendu compte qu'en plus de ça, des décisions prises par le Conseil constitutionnel, les voilà encore dans le périmètre des conséquences dans un acte d'illégalité. Parce qu'ils demandent aujourd'hui à la direction générale des élections de ne faire figurer aucune photo sur la liste de Yewwi Askan Wi alors que toutes les autres listes bénéficient aujourd'hui de cette spécificité ce qui est une discrimination flagrante